conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xamal naa ñu Aly Ngouille mi nga xam ne moom lañ dénkoon ministère de l'intérieur nangu ko ci moom démb def na passation de service ak ñu ko dénk di Félix Antoine Diome yéenekaay gi nee na na nga xam ne moom na leen ko Macky Sall sante woon noonee la ñu ko doxalee ndax amul xumbaaye amul rumbaay amul aw saboro yéenekaay gi ay bagaasam ànd ki ñooñama dem fekki Macky Sall loolee tax na Pape Diop bu bokk gis-gis bokkul gis-gis ak Idrissa Seck sa wàll woowu moo tax moom Pape Diop daan nay génn ci coalition Idy 2019 yéen a kaay gi de la sañu fekk fa Makhtar Cissé mi nga xam ne moom lañ dénkoon wàllum énergie waaye ku ñu wax Makhtar Cissé dafa mer ba maara day taali ci génn gi nga xam ne génn nañ ko ci gouvernement bi bul ko weddi ndax Makhtar Cissé ti na ay kaddu nee na état bu Sénégal ñu goree di lañ da nga leen di liggéeyal liggéey bu am solo boo xam ne ñëpp ñoo si teg seen bët ñu xëy nit di yàq sa der ci loo xam ne teguñu ko fenn yéen a kaay gii di 24 heures nee na nag Macky Sall soo àndee ak moom su dee daal nit ku compétent nga moom dee nga maanaam bu dee man nga si liggéey loola ànd ak Macky Sall Sénégal yëpp di la jaajëfal di la félicité Macky Sall dalay ci ni mu gën a gaawee Bokar Jong mi nga xam ne cadre la ci APR nekk parcelle nee na Amadou Ba dàq gi ñu ko dàq loole waa parcelle yëpp ñoo si békk ndax Amadou Ba bi mu fi nekkee ministre amulul parcelle a kaay en tout cas ginnaaw na ñoo xamante ni mer nañu nañu ba maara day taali ci ñi nga xam na ñoo tàqalikoo ak Macky Sall ndax Aly Ngouille Ndiaye daan def ab déclaration nee na pare na ngir liggéeyal Sénégal fépp nag ak fu mu ko mën a liggéeyale rek moom Aly Ngouille Ndiaye nee na dana ko def Aminata Touré tey jii ñoo ngi xaarandi ab déclaration passation de service digganteem ak Idrissa Seck yéen a kaay gii di Les nee na jàkkaarloo bi du am face à face diggante Idi ak Mimi moo ne yoo xam ne ñoo ngi doon xaar face à face diggante Aminata Touré waaye nag yéen a kaay gi nee na Idi si boppam moo ñàlli maanaam moo daw journal bi daat nay wax ci Makhtar Cissé mi ne état bi dañoo ingrat yéen a kaay gii di Vox Populi dikk na ci coalition Idy bi nga xam ne bëri na ñoo xamante ni mer nañu ba maara détaal yi ñoo ngi rocceeku benn par benn ndax ànduñu ci li nga xam ne Idy daat na koy def Adji Mbergane Kanouté député bi daat nay wax ne Karim Wade ci boppam ak Khalifa Sall ñoo war a ñëw def comme Idrissa Seck ñëw ànd ak Macky Sall liggéey réew mi maître Moussa Diop mi nga xam ne moo fi jiite woon Dakar dem dikk moom nag humiliation nga xamante ni Macky Sall ma ngi koy def Aminata Touré ma ngi koy ñaawlu ba fa ñaawlu yam yéen kaay gi di la ñu fekk fa Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly député bokk gis-gis bi yekk na lu mel ni xamee musiba ak mbelengaan Idrissa Seck ndax nee na Idrissa Seck ci ay dil la yëngu Idrissa Seck workat la lu mu wax tey mën na cee génn te mooy candidat Macky 2024 yéen kaay gii di Le Quotidien daat nay wax ne am na ñetti ministre yoo xam ne naroon nañoo wadd ci remaniement bii na ko bërki démoo Ndiaye ñooñu kay maanaam yàlla baax ku si mel ni Sahara Iyane Thiam Alioune Sarr ak Serigne Mbaye Thiam dernière minute la ñu leen dugalaat ci gouvernement bi coalition jot na bu Ousmane Sonko ñoom tim yàq nañ musiba ak mbelengaan Idrissa Seck daan i wax sax ne Idrissa Seck xanaa xamu leen ne mooy tax ñu yàq dara politiciens yi ndax Idi lu mu wax daal say génnaata yéene kaay gii de la Tribune daan nay wax ne Malick Gakou bu ñu xëyee gis ko ca Idrissa Seck ak Macky Sall bu mu bett kenn bu mu bett kenn ndax député yi nga xam ne ñoo nekk grand parti ñoom nag nee nañu la ñu def boo ànd ak Macky ñu de la témoin Mamadou Omar Ndiaye xëy na jël xalimaam nee moom bokkul gis-gis ak ñu bari ñi nga xam ne ñooy songu Idrissa Seck ndax Idrissa Seck nee na li mu def courage politique dëggantaan la bàyyi ay intérêt nangu nit ñi di ko ŋàññi nangu impopulaire mu dem ànd ja ak Macky Sall lu rëy la yéen a kaay gii di réew mi quotidien nee na waa Fra France Dégage ak waa doy na ñoom samedi ñoo ngi ci mbeddi Ndakaaru yi di naqarlu remaniement beeg doxalin wi si a secrétaire généraux yéen a kaay gi de la Tribune nee na Macky Sall def na njombe def na girawaali gu rëy rëy ndax maître Moussa Bokar Thiam mii nga xam ne ab avocat la ñu jël ko tabb ko def ko agent judiciaire de l'État loolee girawaali la loolee njombe la loolee erreur bu rëy la yéen a kaay gi de réew mi quotidien daat wax ne wolof Njaay nee na bële ngay digle cangaay nag da ngay fekk nga sangu ba pare ndax état bu Sénégal ñooy wax askanu Sénégal takk leen masque yi te nag ku seetaan conseil des ministres nga xam ne moom la ñu génn ñoom Macky Sall bi ñu taxawee di fotowu amul kenn koo xamante ni sol nga si am masque te ñëpp ñoo dendoo yéen a kaay gi daan nay wax ne loolee image bu ñaaw a ñaaw la boo xam ne askanu Sénégal gi yëpp maanaam ñoo koy naqarlu ndax ñoom ñoo ñuy takkaloo masque ba pare ministre yëpp nan la ñu mën a taxawee di fotu ba pare kenn julu ci masque muy Macky Sall muy ñi si des yéen a kaay gi di enquête daan nay wax ne ñi nga xam ne ñooy jël gaal gi di dem ci bitim réew jamono ji ak ndox mi ni mu naqaree loolee xarula la yéen kaay gi di Vox Populi daan nay dikk si ñàkkuk infrastructure jëm ci wàllum pharmaceutique gi nga xam ne moo am ci Sénégal loolee tax na ci 2019 bi Sénégal jënd na lu lu ci cent cinquante milliards ci ay médicaments Vox Populi dikk na ci malnutrition ci Sénégal nee na téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya ci xale yi nga xam ne ñoo am juróomi at dañoo anémie maanaam seenu dund baaxul te li nga xam ne moom la ñu lekk amul fer maanaam amulu ay fer ñeent yéen a gi di réew mi quotidien ak sunu lamb dikk na ci Alioune Sarr mi nga xam ne jóge na ci bopp CNG ku ñuy wax Bira Sène moo ko fa wuutu Manga 2 ak Tafa Gueye ma ngi ci bureau bi Mohamed Ndao Tyson moom dañu ko seppi laas yéen a nee na Alioune Sarr daat nay wax ne maanaam dina baale waaye am na ci loo xam ne munu ko fàtte lu toll ci ñaar fukk ak ñett ci ay membre lañu douze conseillers vingt trois personnes ressources lamb ji jamono ji juróom fukk ak juróom ñett ci ay nit maanaam ñoo ko gérer stade yéen a kaay dikk na ci Edouard Mendy ak Alfred Gomis ñaar ñii ay góolu Sénégal lañu waaye nag yéen a kaay gi ne na Edouard Mendy moo ko gën a xarañ ndax lu toll ci juróom-ñaari mat yi nga xam ne def na ko ak si benn but rek la si encaissé lu toll ci fukk ak ñaar ci ay arrêt Alfred Gomis nag fukki match yi nga xam ne laale na ko encaissé na si lu toll ci fukk ak